يا أشباه الرجال ولا رجال ويا أشباه ربات الحجال di ñaan jigéen ñi pour ñu tekki seen lami tànk yi takkal ko góor ñu nasax ñi que góor gu nasax nag kooku jigéen ñi dindi seen lami tànk yi dakkal ko ko moom rek la mérité mérité wul leneen moo tax Israël mas nañ ko faje seen góor ñi ndax dañu bewoon dañu bewoon bu mu ëpp bew bew xam nga bew bew bu mel ni bi fi xewoon fii ci Sénégal ba tax góor gi Mor Sassoum jóg ni daf koy combattre dem seeti sëñ Babacar wax ko ko ni ko trop c'est trop Sénégal yi dañu bew te booba wax na dëgg parce que booba baxa bu ñu daakaandee xew ak basin bu ñu gome ak dalli double talon yu dóor ba mu ba mu ba mu jeng nga fuddanu boole ca di wogganti ko rekk nag mu ni lii dëppoowul ak lislaam na ci nit ñi génn koo gis rekk ma nga tagal bonekaare la mu ca man def na ko la ca sëriñ Babacar man def na ko ba yu bari wàññeeku ci nee na namm naa Maodo di ko bind ñetti at pour mu may ma audience mu tëma ticc ne ci troisième année ba la may soog a may audience ne ma ni tey daal baxa laa koy solal pour mu kontaan Eh, maa nga defar baxa bu ñu dàkkaande nee eh, na ñëw nuyu ko toog ma gis kanam gi sévère ba mu ëpp ne ma di waay kii maa ngi ko nam ma ñetti at gi gisuma ko ma sañseel ko ñëw mu di ma peer njaayu ne sama xol bi tàng jër ne mu ni tekk ba yàgg mu ni ma ko àndal ma ne ko man rekk ànd mu ni cëy seen jamono kenn kuy dox mel ni mbooloo ne ma xam ni mbubu mee ko neexul ne ma dem rekk summeeku te yooyu yépp ci yaru diine la bokk yooyu yëpp ci yaru diine la bokk dëgg la nag aada dina bare aada dina bare doole ci réew ba gaañ diine loolu dana am aada laa wax dana bare doole ci réew ba gaañ diine loolu kenn amul ci pexe maa ngi fàttaliku bés góor gi sëñ Babacar Si ñu ñëw di ko ndokkeel waaye su sunu yëgoon sax duñu ko ndokkeel ku nekk a ngi sol mbubu basin bu ñu gomee ñu ngi topp ci ñun di taggaate ñu topp mbedd yi ak poussière bi naka la ñu agsi defe ni dafay kontaan waaye keroog daf nu wax sunu pàqumaam ñun ñëpp ni yéen seen kër maam aada yàq ko ba noppi ngeen di ko yokk aada yàq ko ba noppi ngeen di ko yokk lii lan ku leen jur ba ñu topp ci yéen di takkaate ngeen nekk ci mbedd mi di sol yére yu ñu gome ak poussière bi xanaa séexluwu leen keroog lu mënu waxul daf ko fàtte waaye keroog it lanu dénk lu nu war a def fii ba yowmal qiyaama waaw Muniru Saara ngi toog Mansour Sey ngi toog Saliou Saara ngi toog Cheikh Tidiane ngi toog mu profité ci nag li lii ma leen di wax bu ngeen ci génnee bu ma fekkee ci bàmmeel sax danaa ko yëg parce que font baaxul keroog lu nekk wax na ko te dañ ko doon ndokkeel si ndax ci ngénte la ñu jóge te ngénte la doom ba mën lañ ko tudde muy muy taawu Serigne Mansour Cheikh Tijani ñu ñëw di ko ci ndokkeel waaye fekk ne ca ngénte la sax àdduna yépp ko fekk te boobu kër gi kenn du nuyu sa morom te ñu war a dem ngénte ji seetal loolu te kenn du nuyu sa morom ku ne sa morom mooy sa noon soxnaa sukkan wax ni ku demul ca ngénte la dootoo dugg ci kër gi seetal loolu tax nu forcé dem ba nu demee fekk nañ fa àdduna yépp waaye boo gëmmee doon ni nit a ngi ci kër gi waxuma la wax waaye kenn noyuwul àdduna yépp daje fa ndar Louga Thiès Kaolack fépp ala jéemal sekk dem ba ñëw mooy càmmiñu soxna su sekk bi jur moom si ñépp toog ni parti nis tuuti alaaji mbay ñëw déy ko mu daldi wax ni alhamdulillahi rabbil alamin ndax lii lanu waxante bi nun famille bi ndax lébu dafa sedd ndey loolu lu am solo la ci ñoom waaye ñoom lañu d'accord ca ndakaaru mooy suñu ñëwee kàddu gi nañ ko jox Serigne Cheikh te loolu ci la Alaaji Mansour d'accord kon nag sant yàlla rekk a ci des kon nag sëriñ Cheikh koo tudde doom bi rek d'accord nag ci waaye sëriñ Mansour nag yónni na ma ci yow nee na nga tudde ko sa bopp moo ko ko gënal ndax da ngeen ko wëllërante woon ci kanamu sëñ Babacar si mu ni ma tëyit doo nit buy xatal ko xat yaa xatal sa bopp wante ñun ñi la xam ci sa barke turandoo mësuñu yëg koo xatal mukk ni loolu duma ko nëbb mukk waaw parce ci façon boobu rekk lay jëfandikoo bu neexee Babacar si baax na bu neexee astukan baax na bu neexee Alaaji Malik baax na bu leen neexul je m'en fous non rekk la am bés ziar bu rëy am fii ci Tiwaawan ñu waxtaan fa waxtaan wu rëy yàllaate ba mu noppee maag Serigne Mansour ñu taxaw mu ni ma yaa ngi jëm dakaar ma ni ko waaw mu ni ma soo demee nanga ñaan ndax jigéen ja ca ndar bëgg naa mu ñëw waaye koo xam ni mbokk gor yi kenn mënul tëb tëb laaj la kon nag dañuy ñaan ba ba ko yàlla di yolomal ma ni ko kon su ma demee dakaar def ci ñaan ndax daan naa ko di ñaanal laaj ko yàlla dogal may dem bay dugg dakaar rekk ma ni mujjin lii fokk lii dugg ci ma ni chauffeur bi wëlbati ko mu ni ma fu jëm ma ni ko ndar ñu dem ndar ma jël jigéen ji dugal ci biir oto bi waa kër gi xama ko ximmi loolu sama yoon nekku ci mu ni ma jël sama saak bopp ma ni ko xaju fi mu ni ma sol sama mbubb ma ni ko xaju fi ni chauffeur bi ayca ñu nga wuti Tiwaawan bi bi muy agsi fekk na waa jàkk ji génn Sëriñ sol ni ma xanaa danga fi fàtte dara ma ne ko fàttewuma fi dara soxna far si la mu bëgg jëm fii ma ni déet kaay mu bëgg jëm fii ma ni déet kaay kii këram la ñëw sëy siwu dafa ñëw këram acca ubbil ko bunt bi mu dugg mu ubbil ko bunt bi mu dugg boobu façon moom laa xam xaw ma beneen façon waaw ne bu fa nekkoon di diisoo na fa am ñaari weer ndax ñanu fa nekkal ñépp noog ñoo ma bokk bi ci des mooy ñetteelu fanu sëñ Babacar ci suuf ben mbokk wax fa wax bu rafet dal di wax ni sëriñ Cheikh moy Sidina Aliyu bu kër gi ñu tàccu ba mu àggalee ma ni ko aw kuy Umar ibn al-Khattab mu ni tekk ba mu yàgg ni mu yéen man li ma wax ku ma ko wax loo yaa xam de waaye fekk na nànd naa la fa mu jëm waaw ndax am na kër goo xam ni bu fa jëm dara la borom tëral rekk moo ci am sol leneen du fa dox yàllaate ma yëg ci moom ne xaw na mer lool waaye mer ma mujj na deñ ndax mer ma daf ko bëggoon sësi ca sëriñ Moustapha c'est-à-dire tànn ko muy leaderam te nag comme ku yàlla yeela ci àdduna mu doxal fa doxalin bu am solo ba bés war a ñëw Serigne Moustapha présider ko ñu yëgal ko àdduna yépp ma di ko dégg ba bés bi des vingt-quatre heures Serigne Moustapha ni leen ndax yëgal ngeen ko sëriñ Cheikh nga jotuñu fa dem nangam daldi di woyofal mu ne ah dem leen seeti ko ñu ñëw seet si ma mu wax ma waxuma waaw yëgal nañ ko àdduna yëpp nangam nangam délégation ba kenn nga ca koo xam ni ku ko gën gëm sëriñ Babacar amul ku ko gën a gëm sëriñ Moustapha amul ku ko gën a sopp Cheikh Tijani amul ma xool ko ni ko ana sëriñ ba mu ni ma ma nga fa ma ni ko soo demee nga nuyul ma ko ni ko namm naa ko danaa ko seet waaye ñi ci des xooluma leen moom rekk laa xool ñu ko namm naa ko danaa ko seet waaye wax ko ni ko affaire bi na ko teg ci suuf mu ko def mu ne ah lii lan la xanaa kon àdduna bu tukki la ma ni ko xanaa affaire bi yaa ko moom bopp ma ni ko soo demee ni ko cheikh nee na teg ko ci suuf bu ko def mu dem wax ko ko mu ni ko kon nañu ko teg ci suuf kenn du ko def parce que xam naa ko maa ko yar lu mu wax rekk am na fu mu ko teg noonu lañ ko mujj bàyyi moom it comme amul jikko wolof ci ëllëg sa mu seet si ba ni ma baal ndax xaw ma woon nga baal maax mujj na lu ma yónnee ci Serigne Moustapha ci farata moom laa koy yónnee mu dox ko te ci yàq dara te boo amee woon jikko wolof du ko mën dafay jóge loolu dafay baax ci réew mu mel ni Sénégal waaw آه، ابو الاسود الدؤلي دفا وخ علي بن ابي طالب خمغا سينغور دا فاي وخني c'est la plus belle langue moom loolu la gëm que jàngul arab waaye bu jàngoon arab dina xam ni arab du moroomu français waaw yàlla xam na ko waaye jàngu ko nag daan nañ ci di waxtaan ba sore yàlla xam na ko abul aswadi du ali ni ko dañu war a tëral science bu protéger kàddu hein? dañu war a tëral science bu protéger kaddu ndax kaddu li ci aju dafa bare te bu ñu ko protéger wul àdduna tukki ci la ñu tëralee fànn bi ñuy wax naxw ngeen di ko wax grammaire ñu liggéey ko liggéey ko te lañ ci gënoon a jublu mooy protéger alquran gannaaw ba ko yàlla protéger ba noppi waaw ba nga xam ni baat baat ba mu jëkk bind ci naxwu mooy xaddul kalaami ma afaad xaddul kalaami ma afaad le verbe ne vaut que par son utilité moom la ci jëkk bind le verbe ne vaut que par son utilité. Voilà. so et suba di wax di wax di wax di wax bu ko ni ko li nga doon wax lu ci yiw du la ko kooku du wax kooku du tudd wax wax dafa jur te yiw lay jur waaw moo tax ñi nga xam ni ñoo féetewoo li ñoo tuddee culture psychique ñoom docteur Pochet ca la bokk ñoom docteur Karel ñele ca la ñu bokk ñoom dañu am lu ñu daan wax moy nit war na man di li ñoo tuddee frein ci oto war na ko man ci làmmiñam mettre en frein

mën nit mën na ko moo ñu bëgg nga wut frein sur la pensée waxuma sax sur la langue mais sur la pensée lu jafe la mais lu am njëriñ la waaw dina dimbali nit ci jaamu yàlla sax parce que li ñu naan teewlu teewlu teewlu teewlu amoon naa maam mu dëkk amoon naa maam bu dëkk siin tuubeen la ma fekk muy julli ba mujj muy seet nafaam di yër naf di yër nafa ji ma ni ko moom maam mës nga gis kuy julli di yër sa nafa mu ni dama ci defoon mo ne te xaw ma mo baa ngi ci wàllu waaye tuubeen la sañ na ko pour wax la ni teewlu beneen affaire la du ñëpp ko man du ñëpp ko man maa ngi amaan benn mbokk taalibe bi ñu jullee ba noppi mu ne ma est-ce que seet lu nga ni ma doon jullee ma ni ko déedéet mu ni dama doon tiitaru <laughs> ma ni ko lu tax mu ni parce que dama am xaalis maam xaalis mu ne ma boo gisee bu may julli daal sol bax e, di yëngal sama dënn dégg di yëngal sama dënn yooyu yëpp booba dama am xaalis ba boo gisee may julli di onk comme wundu booba awma dara gis nga ñépp ma wax ni ma sa lunette yi baaxatu damay xuloo xuloo xuloo xuloo ndax ndax ophtalmo bi daf ma woon na nga koy changer tous les deux ans gisatuma ko ba am 30 ans ma dem di ko seeti maa ngi rus sax ndeke faatu na bu yàgg wante lu ne yi baaxatu waa kër gi dañ may soowa soowa soowa soow kaay dem ñu changé la ko kaay dem ñu wattul la ko bu ma liiree daf may fatigué yàlla xam na ko waaye fi mu ne mu ngi mel ni maa ngi koy gis ni <laughs> eh, moom de li ma waxoon bërki démb rek